njortu mbaa di yaakaar wala sax di xiini mi ne na kenn mel na ci réew mi ku mel ni Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan ci mpaj loolee xelaat la gu amul Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan ma ca Saalum ca kër Sàmbaraxi yootal na ma mbaxuus goo xam ne ëpp na di toogaale nee na ma Seydina Ousmane maa ne ko naam sang bi mu ne ma li ma yàlla may ci mpaj laa bëgg réew mi yëg ko ma ne ko loolal la mu ne ma am naa fi càngat goo xam ne fat fatxan xan laa ko tuddee càngat gi càngat la goo xam ne ci ubbeekaay lay dox ci wërsëg ak mbooleem loo xam ne loo dugg yàlla da ciy teg càngat googu dégg sëriñ bi ne ma foor na foor goo xam ne kenn du ko sangoo ñaari yoon ci at mi ku ko def benn da ngay génn réew mi wala faaw daañu la ñamal kaso am na itam beneen càngat goo xam ne sang bi nee na dama koy def ma ne ko ban la mu ne ma sirru dunya sirru dunya ni turam ku ko takk faaw àdduna bi dégg la ca la nga nekk am na fa itam benn ndomba bu ñuy wax wallu mag goo xam ne ñi baax ci réew mi réeréewuñu ndomba gi ndax yàgg nañu ànd ak moom ndomba gi ndombaay kaaraange la gu ci accident di la musal ci say noon lépp lu lay nara lor boo takkee ndomba gi doo ko gis doo ko dégg boo toogoon ci barab ba jéye di fa wàcc boo àndeek ndomba gi feeg jógoo fa jéye ji du wàcc sëriñ bi lépp lu muy dugg balaa cee dugg ak yow faaw doo koy si listixaar ba ñu wan ko lu leer mu soor cee soobu jaaro bayre bi nga xam ne ku ngeen gis mu takk ko ci réew mi ci sëriñ Modou Gaynde Kéemaan la ko jëlee sëriñ bi nee na yor naa ci yeneen bagage bagage yooyu moo di ñett jaaro la yoo xam ne benn bi bàyyi la benn bi yaay la ba ca des doom la yaay xool fu sa doole toll rek nga jël ca bala neex li wax baa sa lépp baax na bii ci des nag mooy daj dëpp gi moo di kànnaar goo xam ne nañu ko tuddee moo di loo ci tëj loo ci tëj du ay caaxaan kànnaar gi kànnaar la goo xam ne xale yi ko xam dëgg ñu ngi koy tuddee xëy mu yombu mi kànnaar googee sang bi nee na ma ku ñu ci tëj bu say mbokk gaawul dëgg du la jëkk ndax doole ji ma àndal yéen ñi nga xam ne da ngeen yor ñu leen yoreel boor te leen a fay wala sax dafa am mbir mu ngeen di soobu mu jafe ci yéen seeti leen ma sëriñ Modou Gaynde Kéemaan mu jox leen ci bagage yi waaye ko kànnaar gi muy wax yëpp mu ngi ko sukkandiku ci waxu yónente bi mu ne likuli daa in dawaa ilal sa maanaam mboolem jàngoro bu yàlla wàccee rek am na saafara suñu koy saafara tey itam nee na ma na seeni xel daal yéen ñu koy seeti bokk la kër sëriñ si nga xam ne dañu fay def ay caméra de surveillance Dara. yow dara wax la yow sa morom yëpp jàngi yow nga toog fii di ma wax naan ma papa dia pilih orang ngi lay topp na la wax pour nga jàppale ma ma takk Aïcha ndax bëgg naa ko bëgg na ma yakin nekkoon ci man yor top naa bosan ba son pour yow yaakaar naa ne sa bopp bi dafa amul ndox quoi yow Ibrahima lan ngay daw bay daanu lan moo ko fi jar yow yaa ngi war a occuper de tes études jàng ngir ëllëg nga mën a am ay diplôme yor sa bopp yow ngay xëccu affaire de jabar ah xam nga lu ma la bëgg a yëgal dama bëgg nga xam ne su fekkente ne xale boobu nga fi indi moo tax ngay wax man déjà booy boobu neexuma

bëgg def de ba àddina sosoo ba léegi sama bët bi ngi kii soog di tegu génn ak doom ba mu neex la nga ne ko fa ñukk di génn ak baay man Anna mbay de sama ween wii nàmpalaguma ci ku bon muy Nafi mbay muy taaw muy yow ay sa mbay nga bëgg a jël nag sa yoonu bopp du fi amee Ibrahima nag amul dara mais góor la li nga bëgg def nak li fi ak ma ngi dund du fi amé yow sama yaay sank ba légui ya nga wax ma ngi lay bayyi ba nga tollé sa jamono nga xol sam papa bam mu nga sey ak mom man bëggatuma Ibrahima papa yi Ibrahima la bëgg li taxol ma ñëw ci way ni di waxtaan ak yow moy semaine bi ni papa Ibrahima dina yónnee ni may ma allahu akbar nga ne paa bi lu mu la wax. paa bi nee jabar kenn du ko mat koy mën. loolu loolu paa bi wax. am dara looy inquiété booy bi di ko takk du sa papa nee na alalam jigéen kese moo ko mën a lekk boo bi di ko takk te ci alalam nga xay takkee. booy day wax lool neex rek paa nga xam ne bu weer bi dee. quarante mille yu may jox pour ma fay école su ma koy jox day loxo <laughs> ma sama laa nag deux millions pour ma takk jabar waaye sa xel mi ngay fooy waay. booy su ma nelee di nga takk booy bi day di ko te ci alalam nga koy takkee yow su ma la waxee war nga xaa gëm ci nga koy takkee <laughs> loolu defuma kaa sax man Aïcha moo ma def kaa. Aïcha waaw. elle a complètement changé. booy changement Aïcha warul a jaaxal. ndax wax ji moo bëri ci boppam changement ay saa war la jaaxal yow te bi saa yow tey dañoo am sa tey la dimanche solul ñu dem boy yow xanaa da <laughs> eh, kay góolu te tey la ñuy yóbbaale de ah waaw ñu dem gaale ma solul ñu dem ah baa da kon waa mais chéri mais yow depuis te yaa ma waxoon ne ma sa grande sœur bi bu jógee Dubaï dinañu toog bi waxtaan mais boobu ba léegi maa ngi lay déglu mais wax nga ma dara ko wax nga dëgg xam nga man fii si si Kambaaw damaa leble woon samay ndawtal te damaa bëggoon bis bu may xew fii si si képp kuy xewati danga koy waajaat. ah waaw loolu dina ma neex loolu moom dina ma neex léegi euh, li ñuy def xam nga mooy lan moom déjà. amna som buma buma ma débloqué à la banque hmm, yor yorna 2 millions yo xamné dina la ko jox ak iPhone. xol nga ma ci kaw ba ci souf nga may may ay 2 millions. càmmiñal lingeer kor jooro jor wa togal togal yow jar nga lu upp 10 millions oui mo yow upp nga 10 millions mais nak fi ma fekk tax. on peut le voir, sur mon bi mangi ci légui ce qu'on va faire moy légui 2 millions yi bayima yok légui tek ci 1 million moy 3 millions ak iphone bi waaw tan na dé peut-être na xaw le plus rapidement possible dimanche matin ma lay andil 3 millions yi ak ay ak iphone bi waaw inshallah dimanche matin bo ñewé hmm gon gi mm-hmm. ma tak sey bi egal ma li man lii laay wër ah nit da ngay gaaw ah yow lan la Ibrahima yow doo ma wax lan la. tooguma lan nga may doyee nga may woo yu bëri yi rek maa ngi wuyu téléphone nga may woo woo yu bëri yi. Aïcha tu as tellement changé quoi man xameetuma la quoi yow la mooy sa problème. yow sax mang la bëggoon woo téléphone far yàlla nga ñëwal sa bopp xam nga la lay doy suñu diggante man ak yow na fi yam. da nga dofu la Aïcha maa ngi yow at yu dund lépp amoo dara loo may wax suñu na fi yam à quelle raison sa papa semaine bi dina fi ñëw ñaan si ma ñu may ma ko yoro nga dof woon sama papa man wow sa papa yow ibrahima da ngay xam ne yoroo sa baay mo yor tuddee xam lekkam Aïcha yow ya bon yow ya yes yow fi ma jaar ak yow lépp lu ma daf ndax yow lépp amo dara lo may fay lu di génn ak sama propre pap sama pap bu jur man eh demal nga ñibbi parce que man damay génn Thank you.